ëllëg le 15 am na ay marches yoo xam ne dinañ ko organiser ci l'ensemble du territoire national muy Sénégal wërgal këpp déposé nañu ci 14 euh, ci 46 départements yi daanaka marche la été xam yu ñu fas yéene organiser la pour dénoncer li nga xamné mo am ci réew mi ba ci ñëk moy ñu japp té tegul ci yoon té ku japp ni acteur politique kese la wala Pastef kese la nax nga sa bop ndax sa su ne ñu japp fi ab journaliste wala ab ku bok ci société civile bi wala keneen ak keneen ñaaral bi waral marche yoyu moy justice bi nga xamné ñu ngi koy. instrumentaliser di ko fooye ngir rek di ko jublu ci régler ay compte ñi nga xam ne bokkuñu kàddu ak Macky loolu dàkk fi ñaar yi nag ma wax ala xaal dañ koy amal meeting bi dinañ ko amal incha allah rawatina nag marché yi parce que Macky moomul réew mi de

ay nitam chaque jour ñu def meeting fii ci biir Ndakaaru ak ci biir réew mi ba pare ne opposition nag naa leen tënk ba kenn du def meeting loolu jeex na fi bu soobee yàlla le 15 bëgg na ko dans les 46 départements du Sénégal a une manifestation sans avec ou sans autorisation Je pense te man en tout cas ku ci man man autorisation marche bu ko joxul vous ku parce que euh, constitution nous avons

saa yu amee rek interdiction moo ko andi kon ñu autoriser Macky Sall lay waxal Macky Sall ci boppam lay waxal ndax préfet yi ay suq lañu sous préfet yi ay suq lañu ñuy sant ñu def Macky Sall lay waxal autoriser nga autorisé woo bu soobee yàlla marche dina am dans les 46 départements du Sénégal Macky Sall dootuñu ko may dara jeex na 12 mois yi di ñëw. lu ko mbir mi jaral jaral nañu ko parce que nag yenn yi ñàkk fulla la kon ñuy woo sénégalais yépp ci rassemblement 14 bi yeewi askan wi waaye di leen woo ñoom ñépp ñu génn massivement ci marche 14 yi